mais man dama ne jiw daan na yegg ci ñoom war a yegg. Ah. waaw parce que ñun ay béykat lañ. Mhm. ñun nitu àll lañ. te saa yu béy nawet jotee ki ñu njëkk a jox jiw ñun jigéenu Sénégal ndax jigéen daawul jot jiwu te jigéen mooy béy mooy saadu mooy def lépp mooy bojj. Mhm. kon jigéen su béyul kër ga day day waar ndax suñ naan suffisance alimentaire suñ naan nañ béy dundee jigéen rek ko mën a def. malheureusement jigéen daawul jot jiwu faatu Gaye saar ancienne ministre de l' agriculture. Mhm. jigéen moo njëkk a jox jigéen sans apport amul woon apport daf ñu ko mayoon jigéen ni Sénégal yëpp groupement féminin yëpp ak ñëpp. président dafa dafa am xaj ak seen nga bëgg a wax. Euh, ak ah, déedéet waxuma loolu dama ne. opérateurs yi. waaw bu fekkee ne tey dañu. parce que boo ko jox. foofu foofu laa daawul jox waaw daawul jox jiwu. waaw jigéen daawul jot jiwu. mais jigéen a ngi commencé jot jiwu ci Fatou Gaye Sarr. d' accord loolu yan année la ci ginnaaw. yàgg na ndax temps boobu Euh, Ablaye Wade moo fi nekkoon. Mhm. boobu Macky Sall mi nekk premier ministre. Mhm. xam nga kon yàgg na yàgg na. booba ba léegi nag ñi continuer di jox jigéen jiw. d'accord.